alors Souleymane sénégalais yu bari dinañu rafetlu jàmm appel au dialogue le camp de Ousmane Sonko jàpp nañu ne c'est parce que le rapport de force n'est pas en votre faveur que vous acceptez le dialogue oui. que que xaaral rek que le président desserre l'étau Ousmane Sonko dañ ko fi condamné pour corruption de la jeunesse dans le cadre de l'affaire Adji Sarr ju dugalaat ko fi ci beneen dossier euh, atteinte à la cohésion de l'État tegal ko sept sept chefs d'inculpation mu ñëw les les les les juridictions arrêtées des décisions le concernant DGE bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko appliqué ñu génne ko ci élection bi ndax mënu leen woon njëkkee. waaw léegi ndax mënul leen j'ai envie de vous dire. ndax mënul ak li ngay bon disposition yi ngay wax ni ndax boo leen ko njëkkee woon est-ce que du ñu def du ñu duñu économiser quatre ans de la vie de notre nation pendant lesquels on a tous souffert de 2021 à 2024 réew mi yàqu en bi dugg ñu salfaañe valeur yi salfaañe institution yi yàq sax élan bi man deuxième mandat Macky Sall jëloon Maïmouna on ne pouvait pas faire l'économie de tout ça bi Macky falo ba mu jógee jam ñaajo nu installé ko. bi mu faluwaatee. bi mu faluwaatee ñu fa installé ko laa ne ko laa ne ko da yaakaar ne jàmm ñëw na pare nañ ci ma ne ko pare wuñu ci xeex bi dafay commencé. gis nga ñii lu leen urne yi ma mayul. ruu bi lañ koy nangoo ci yow duñu la may jàmm mars avril mais ñu indi affaire Petro-Tim ab Aliou Sall jiiñ ko boobu ba léegi jàmm amul nanguwuñu ñu liggéey ci jàmm ñun suñu kenke na xamuñu fu ñu jaar xamuñu fu ñu jaar problème sur problème problème sur problème ba tey jii may wax ak yow waaye léegi may mun a gis nga Ablaye Wade dafa amoon bi bi bi ñu reyee maître Babacar dafa am ñu waxoon ci biir ci biir parti socialiste ne nañ ci profito condamné ko tëj ko ba jamais ci àddina dootu mën a nekk candidat ma wax la lii ñu ne nañ ko tëj ba dootul musa nekkati candidat xam nga ku ko sauvé François Mitterrand xam nga ku fekkee waxtaan boobu Amath Dansokho Mitterrand moo ne ko Abdoul bàyyil bàyyil ndax jàmm bàyyil ndax jàmm ne non justice la justice est bàyyil ndax fu Ablaye Wade ak Abdou Diouf mujjee du lëngante. mu doon représenté ko samay franco ki téye loxoom yëkkati loolu laay ñaan ak ku Séné yàlla mën a jox Sénégal mook Macky mu demee noonu parce que Sénégal rek la Sénégal mooy am ndam Sénégal mooy gagné. mais mun a quitte de votre camp c'est-à-dire tey. may mun a avec tout li ngay woowee au fait ñun. sunu mais mais ñun sunu camp. li ngay woowee sunu camp may mun a gis nga man dama ni la dama ni la man. sama wàll laa mën a waxal mënumaa nettali sama gént nettali gént jàmbur man sama wàll laa wax gis nga li tax PDS yàgg fi déggal Ablaye Wade déggal ko ci circonstance bu ne ñu déggal ko moo tax kilifa la rek njiit la boo ko jegee sax gis ci moom ay faiblesse ah ay limite ay faiblesse nit la rek mais ñu déggal ko. mais Wade a réussi xam nga lu tax xam fu lu tax Pastef mu doon parti bu fort ma wax la ko. Hmm. xam nga dara gënut a garaaw ñu ne lay yaa dem ci néeg bële bi ngay dem kenn forcé bi ngay dem di dugg kenn takku yeewu la yóbbu nga dem nga violé couvre-feu. nga dem ba foofu nga dugg ba ci biir génnaat ñu ne la yaa fa demoon nga ne complot la Macky Sall moo ma Macky Sall nelawloo dugal ma ci kaar ci oto yóbbu ma ba foofu daal di ma jël sànni ma ci biir ci biir néeg bi demaat est-ce que gis nga solidarité bi ñooñu am. ils reprennent le en en en chœur et en groupe. mot ah. complot complot ah. complot. rek complot daal di ñëw. et puis ñu jël ko sellal ko daf ko daf ko yenante ci saasi waaw léegi ñun dañu wax jàmm jàmm jàmm Macky Sall jàmm mu ci man xam naa ñi tiit lu ñuy tiit lu ñuy tiit non dafa am ñoo xam ne c'est comme opposition bi am na ñoo xam ne wax naa la ko fii pourtant Maymuna ma ne la Maymuna am na opposant yoo xam ne ñu ñooñu ñu gën a bañ Sonko génn nekk candidat mais ñi nekk seen camp lu ñuy tiit ñu nekk suñu camp yaakaar nañu ne day gën a jafeel affaire yi. duñu lan élection. waaw wala. waaw am na ñoo xam ne aussi dañu dencal Macky dañu dencal. Euh, Sonko mere ko ndax yenn yu mu parce que am na foo xam ne bu ñu fa tolloo Sonko c'était une défiance mais mais mun a crise bu ñu dul dépasser amul. Rwanda dañu reyante di daggatewante ba huit cent mille personnes seen bakkan ci boo demee Muram bi da ngay fekk kaang yi ñu rangale ko juboo lañu ñu mujje may mun a may mun a il faut ñu jubu il faut il suñu camp man man ragaluma opposition hmm. y compris ñu nekk Sonko di wax ni non bu ñu juboo bu ñu nii bu ñu naa rendre ñu service Sonko parce que Sonko bu naree jël Sénégal dama ne bu naree jël Sénégal ci jàmm rek la ko mën a jëlee may mun a